am nañu mbégte eh, Omar Foutiyou Tall yal na yàlla sàmm teg loxo Serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général kulu murid yal général de Tidiane yal na yàlla gudd fanam Pape Malick Sy ba yoroon kaddu kër ga xippee ci àddina gën xalif général de Baye Fall ñu koy siyaar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér yaram Pape Mahi Niass bi nga xam ne mooy xalifa Medina Baye yal na yàlla fanam Serigne Maam Abdoulaye Thiaw Laye xalif général laa yéen yal may fan bu gudd Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass la woon Niassène may fan bu gudd bu ànd ak wér yaram Imam Cheikh Cissé ci Medina Baye Serigne Cheikh Bekay Kunta ak njabootam ca Ndiassane di ziar tamit ki nga Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmadou Ba Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Tidiane ba xalif général bu Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif maam Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé bu xalif bu Ndande Alaaji Modou Mam Cissé ñu koy ziar di ziar Thierno Madani Tall xalifu Thierno Mountaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Njàmbe borom Daaru Bari borom Bogol ziar suñu baay suñu Serigne suñu xalif suñu soppe xalifu Serigne Fallou Mbacké yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram Serigne Abou Mbacké yàlla yàlla di ziar zahir ak ci baatin yal na yàlla gudd fanam Thierno wala yaabe ci Fouta di Thierno Sama Samora bi nekk ci Fouta ak imam François Bodian xalif général de la communauté Joola nekk ci Ziguinchor euh, ca Bignona ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér suñu baay bi ñuy jooy ba tey ca Bokar Alpha ba ca war a fondé kaamin moo dem waaye ñu koy ñaanal fii mu jóge fa mu jëm gënal fuuf moom Thierno yàlla ko yàlla xare ci àjjana gën a nekk ci Mbour Tefes Habib Gaye mu muxadamu sëñ euh, Mama Mbeng ak ki nga xam ne nag moom mooy Fari Mangane Modou Fleur ñu ngi koy nuyu di leen ñaanal kenn du lu papa ju baax ji di cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak mbooleem berger yi nga xam ne ñoo ngi ci ñoom ñëpp yal na yàlla defal kenn dalu jàmm may leen fan bu gudd gudd yaram ci barke yonti yàlla Yeesu Christa borom xel mu sell mi ñuy nuyu tamit xam ne mooy maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar Géej maire social Marine Kouthia Show yal na ko yàlla defal jàmm Serigne Mansour Sarr chef religieux moom lañ dénk suñu yaay Adja Kinisi Adja Kinisi nag xam ngeen ne doom la ci suñu baay ja nga xam ne ñu koy jooy ba tey du ñu ñaanal waaye ñun nag ñoo koy ñaanal yal na yàlla def mu xippee ci àddina gën a kawe a waaye nag ñuy tamit suñu bàyyi di Chérif Moutali Abdoul Tidiane Tidiane sëd la ci Cheikh Ahmed Tidiane nekk ca Pikine yàlla gudda fanam Serigne Hadi Cissé Touré nekk ca Fass Touré ñu koy ñaanal kenn jàmm Alaaji Baaba Lamine nekk ca Parcelles Assainies moom wax dëgg yàlla suñu papa ji yal yàlla defal la jàmm may la taw nga yàgg fi te wér Serigne Mouhamadou Moustapha Sow waaliw Kaamil xalifa moom Abdoulaye Sow ca Dagana ñu koy ziar Alaaji euh, Alaaji Mouhamadou Aïssata euh, xalif bu Guet Ardo nuyu nañu ko ak Cheikh Ahmadou Bamba Medina Tandian bi yëpp di leen ziar di nuyu tamit Thierno Alassane Mbaye taalibi Thierno Aliou nekk ci Ourossogui ñu koy nuyu tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér di am tam mbégte contentement ci Alaaji Babacar Dramé nekk Baba Diongo fils de Baba Diongo de ay soppee nañu yàlla na yàlla defal jàmm Serigne Ahmadou Seck xalif bu Alaaji Cheikh Seck ci Xurdaan ziar nañ ko euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Maahi Cissé bu Alaaji Aliou Cissé euh, porte parole bu Medina Baye ñu ngi koy ñaanal kenn du la Abdoul Aziz Diaw nekk nag taalibe Baye nekk ca Yoff moom tamit di ñaan kat yàlla may fan bu gudda góor gu yaram Cheikh Soxna nekk ca Fatick Serigne As Soxna di xalifu baayam Baye Barxam Soxna ci Medina Mbale ñu ngi koy ziar suñu papa mi nga xalifu Alaaji Amadou Mbaye ziar suñu xel dem ci alaaji Lamine Sarr bi nga xam ne nag imam Sarr moo doon jiite ci HLM borom baatu wursu ba di ko ñaanal fa mu ju fa mu nekk gënal ko waaye nag ñun suñu xel dal na doom ji nga xam ne mooy Mbacke Sarr na bàyyi jameloon noonu la mel jàng na alxuraan am na yar am na teggin te jox na cër mag di docteur boo xam ne ku mu faj yàlla defal ci jàmm moom yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak imam Mansour Seck ci yëmbal moom tamit ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal kenn dalu jàmm yàlla defal ko jàmm may ko fan yu yaatu ak wërsëg bu yaatu moom ki nga xam ne mooy suñu soppe boobu di imam euh, imam euh, bi nga xam ne mooy euh, nekk ca Dingiral xalifu Serigne Matar Gadiaga ñu koy siyaar Euh, Idrissa a euh, ca ci li ma xam ba koy ñaanal kendalu jàmm Serigne Abdoulaye Diagne Kang croisement gu ñaan moom tamit di waaliyu kaamil yal gudda fanam maam Abdoulaye Kébé doomu koy ziar may fan bu gudd ak wér yaram di nuyu tamit suñu xarit suñu soppe alaaji Malick Soumaré di euh, soppe alaaji Yatma Der kilifa diine ne na yàlla sàmm may leen fan bu gudd ak wér yaram ñii daal wax dëgg yàlla ku leen di sargal daal wax dëgg yàlla yaa ngi sargal sa bopp ndax ñoom ñoo ñuy ñaanal bu ñu tëddee ñoom ñoo ñuy sàmm ñoom ñooy doon suñu avocat suñu ginnaaw suñu bu ñu suñu borom kàccoor yu mel na man nga xam ne tooñ rek la ñuy def bu ñu amul sëriñ sii nga xam ne ñoo nekk suñ kanam keroog àllaaxira xam naa ne moom bu gars yi daanee góos mu neex fekkee droite moo naqari boo moytu ci digg ba lay nekk ndax tooñ yi nga xam nañ koy tooñ ñoom nag ñoo mën a def ba yàlla jaar ñuy jéggal te yàlla daf ñuy jéggal kon nañ leen fonk di leen tarbiyu di leen jox seen wàccuwaay te di leen ñaanal tamit ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér ginnaaw suñu suñu ay waajur ñoom ñooy suñu kilifa waaye nag góor gi alaaji yan ma deer mi tamit suñu soppe la yal na ko yàlla defal jàmm kii dafa bëgg sëñ rek ba wax dëgg yàlla boo demee këram euh, waxtaan bi yëpp si waxtaan sëñ Babacar lay wax waa kay waa kay nee woo ko waaw booy woote noonu boo bu ma ko waxuloon doo ma ko wax waaw kay euh, yàlla na yàlla defal jàmm may la fan bu gudd a góor gi am alaaji yan ma deer yàlla sa jàmm yàgg mbokk yi ah balaa ñuy tàmbali nag dañoo am gan ki ñu indi nag moom mooy Moussa di koo xam ne wax dëgg yàlla euh, liggéey bu rafet mu ngi koy def ci biir Sénégal di artiste tamit tey mu ñëw ne am na loo xam ne da ko taxawal parce que nee na nag jot na pour nga liggéeyal sa bopp mën a am sa yoonu bopp daa wane ne la nga doon tàggat jàng ko ba mokkal ko le film nag moom dafa nekk ci formé maanaam da doon nekk ci formation formé ay xale tënk leen jël ay xale yu ndaw responsabilisé ci loo xam ne tey boo ko bëggoon def ay mag ngay dem uti yoo xam ne dañoo génn université jàng ko jox leen ko mais nag mu wut ay xale yoo xam ne ay tout tànk nañu former leen leen gëm leen seen bopp lii boo leen ci nekkee mën ngeen am dara tey Moussa nañu dal suñu plateau balaa ñuy tàmbali dara ana Moussa sëñ Moussa na nga def. maa ngi mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax alhamdulilah jàkkaarloo micro yi. waaw fii sa kër la. du ma fi gan waaw. di nuyu àdduna di wax ne la saka canga sa tay bu ndas balaa kës-kës kala ka poxe si pox ndaama li mën yegaa nga ñun nag faa man yegaa ngoo a faa man bañaa neen sax atatraxa yëgal këla yëg ngir ñu la yëgul waaw nga bëgg ñi la bëgg ngir ñu la bëggul loolu làkk olof la war a danga ko def lan la ay bambara la war a ba ma xeet làkk xam nga ay jat la <laughs> c'est que damay daaneel gars yi mais yow may daaneel te yóbbu. waaw mais dafa xamul gars dama xamul. waaw parce que du ma la ko fa bëggee tekkal. waaw day tekkil dañuy dañuy jël temps émission. waaw kon ko dinaa la woo après wala ma vagal la ko ndax yow da ngay sama grand. Ah, yow su ma fàttalikoo bu may xale am na école su euh, école euh, élémentaire Ababacar Sy. abal ma sama lettre bi moo la s'il te plaît. néewal Sofia sama secrétaire la. waaw moom day ko baax. moom nag dafa jël ay xale yu ndaw tàggat leen ci li nga xam ne mooy euh, administration. amul na. waaw mooy sa sa lettre invitation très bien soobee yàlla ma bëgg nga ñëw jëmmal ma man nag du xaalis. du dara waaw yàlla ñuy suturaal. ñu ngi mais da booy def bés. waaw da ngay bëgg ku lay jëmmal. waaw waaye xam nga ne Kouthia du n'importe kii ci réew mi. waaw Kouthia déplacé ko yombul. waaw Kouthia kenn du Kouthia du koy waxantu. Kouthia kenn du ko indi ci lu ñàkk fayda ba tax na yow bés ba. waaw séntu na la jël pour wax la assuré ne la. waaw y aura maximum de sécurité. dina am police. waaw dinañ ñëw couvrir ko. am nañ autorisation dinañ am ay éléments jeu mi. waaw dinañ organisé de telle sorte que boo ñëwee di nga xam ne fii c'est professionnel. amul benn problème même boo amul sécurité may ñëw yow tamit. waaw dégg nga waaw man booy booy Parcelles Assainies la. waaw jeex na booy booy booy Grand Yoff la. kontaan nañ ci moom. waaw yal na la yàlla defal jàmm. amiin amiin may la fan bu gudd a gudd gëram. amiin xale yi nga formé nga xam ne mm. da nga leen dugal ci administration. Mm. ne leen gëm leen seen bopp. Mm. xam nga ne Sofia mi boo xoolee xam nga ne wax dëgg yàlla eggul xale la mais war nga ko ne gëmal sa bopp nekk sa ginnaaw coordonnateur lii nga def ni c'est très important chaque jour tëngeej lay jógee. ndeysaan xoolal di xëy si ba passe golf. waaw kay chaque jour yal na yàlla defal jàmm. waaw kon nañu yàlla jàmbale waaw ñu ngi lay xaar. waaw le 12 incha allah unité 2. unité 2 nga ñëw ñu yëngal jamono. def ko spectacle théâtre. jeex na you know what I'm saying. you you were quelqu'un who brought up this for Kachin. Sometimes everybody you like it. Pronto yaara quelque del ke. Happening so say yeah. and great spectacle event yeah. OS. Anyway, plus more spectacle pass as an unité 2. When can you have? Ah, too much time. Yeah, I'm stressed. إن الضريح mbégte <laughs> ak contentement wax dëgg yàlla Kara Kara dañu wax di dëgg àddina da ngay ànd ak dal way Guy Marius cinq ans mandat la nga <laughs> ma dégg boo ko defee ci groupe kay war ngaa ànd ak dal way përti përti rek dala dalanti ah doy na waar waa Ngor daal maa ngi leen di nuyu vraiment di nuyu waa Ngor daal vraiment uti nañu waa Padois Padois moom ak Grand Yoff moom uti waa Ngor waa kay kon léegi nit da xam xam nga boo nekk ci bërëb dafa juróomi at da nga war yow si yow yaa war dalal nit ñi waaye bu fekkee da nga bërti bërti rëtti rëkki bërti bërti mooy fekk ci kaw waaw ki may waxal xamoon na boppam ñaar lañ ñëw kenn xam naa kenn ki moom papam laa rus rek mais sinon kon ba léegi utal nañ ko buntu mbokk yi xam nga fu ñu jëm dañuy seeti Ablaye Wade Ablaye Wade nañu seeti am na lu xew nag waaw Ablaye Wade am na lu xew laa loo xam ne wax dëgg yàlla foofu ñu dem seeti ko ndax euh, gars yi koy réclamé Ablaye Wade ci boppam waa PDS ñu ko réclamé. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant delluwaat di leen gërëm wax dëgg yàlla ñaar ñoo xam ne réew mi da leen soxla te réew mi bu ñu leen soxlaa dañoo dem fekk si gis nga dafa nekk nit koo xam ne wax fa dëgg yàlla dama ko naw gis nga réew boo ci nekkee da ngay ànd ak Pastef Pastef bi mooy fexe ba yow li nga xam ne moom sa gis-gis ak sa gëm-gëm nga doxal ko parce que aadama victime la boo xam ne soo gisee ma jël dossier di ko défendre c'est parce que dama xam ne ne gis-gisam mooy jàppale Grand Yoff su ko neexoon du ko def mais moom il est porté pour être candidat mais nañ ko bàyyi mu dem ak candidature am parce que tamit nit ku nekk à la place qu'il faut man lii ma gis démba barki démba mais euh, recevoir euh, Aminata Touré bi ak Macky Sall ak fi aadama génne y'a quelque chose mais nag nañu xam ne nag xale yi ñoo bëgg aadama man aadama am naa waa PDS ñu waxtaan sax daal koy defal mu nekk suñu candidat parce que xam nga lu war a loolu aadama Faye xale la boo xam ne eh bien ci sama gis-gis dafa wane na démocratie daal amul goro amul leneen bu jotee dañu koy wax waaw comme que ñun ñi nga xam ne ñoo bokkul ak Marème bokkuñu ak Macky ñoo mën a taxaw wax ci Macky ku bokk moom nag génn di ci wax kooku ñu ak ñoom ñoo far kon li ñu war a def kay mooy encadré ko te loolu mooy démocratie affaire mairie du affaire député du législative du présidentiel loolu nit ak nit la mais yéenam la am bu ko def ci biir population dañ ko bàyyi hmm? soo gisee ma ciy wax nag dafa maase Karim te gis-gisu Karim ak Adama benn la ndax moom yéenam mooy fexe ba kenn du sonn Adama ngi ci jumaa yi maa ngi koy gis vraiment muy def acte social yoo xam ne ci moomeelu bopp la da ngeen ko gis mu yor benn poste ci gouvernement bi te pourtant bu ko neexoon def kon euh, magan waaye mhm. dafa ñëw toog def ay social fi mu dëkk loolu nag suñu yoon sax nekku ci ñun PDS vraiment ñun on s'occupe de nos oignons mais nag la sortie de Adama c'est pas quelque chose qu'il faut négliger parce que personnalité la boo xam ne dafa nekk à APR bokk ak Marème wax wax ju doy waar moo tax daal démb Karim woo na ma jooy a jooy a jooy ba bëdi néew ma ne ko Karim mu ne ma papa Adama daal waruñu ko def nii parce que Aminata Touré ñëw Adama génn est-ce que bëgg ñëwaat defaat loolu Adama ndax defoon nañ ko ma ne ko di euh, calmer ko waaw léegi démb jox naa ko numéro Adama ba ñoom ñaar defe ne appel en absence moo leen le waaw mais dinañ déggoo parce que vraiment Adama ñu mel ne Adama parti bu nekk da ngay ñaan am ko parti bu amul ko taxaw fipp ne lii bëgguñu ko rek. xam na démocratie ba des na fa waaw ku mun a wax dëgg sa goro nag doo bàyyi jaambur yàlla wax sa goro doo bàyyi jaambur yàlla analyse bi foofu la parce que c'est quelqu'un boo xam ne il fait dans le social te mairie social la développement bu def développement infrastructure yooyu yëpp état moo ko war a def état mooy jàppale mairie waaye social mooy ki nga xam ne day yeew bëgg aajom faju vraiment daal man daal Abdoulaye Wade taxawal naa fan sa club aadama bu nekkee ca kaw ca kanam Karim boo ko fàtte parce que nekkuma fi tamit pour def promotion aadama mais Karim daal wax dëgg yàlla ak aadama bu ñu àndee yàlla mën na leen dimbali génération nouvelle génération bi xew mooy ñu bàyyi xale yi gérer ñu mel ne aadama Karim ñu mel na ñeneen ñeneen ah ñu mel ne ñoom ay Aïdara xale yooyu nga xam ne xale yi mouvement yi ñoo ëpp xale yi parti yi waaw xale da ngay jëf da leen ci dugal Karim nag kay loolu la ah Karim daal Karim daal Karim daal Karim daal juróomi at la fi def dafa war a dem Seyni Diakhaté Aïta Diakhaté ak Ousmane Diakhaté foto mu ngi noonu de la part de toute la famille Diakhaté particulièrement à Seyni Diakhaté qui lui souhaite longue vie santé bonheur et beaucoup de prospérité happy birthday to you à Khady Diagne nit ku baax macha allah joyeux anniversaire à Moussa gay doomu xol euh, borom xol bu rafet bi macha allah baayu Mouhamed Gaye ak Abdoul Abdou Aziz Dabakh Gaye depuis euh, Saloum poste Kër Ayib photo mu ngi noonu de la part de Ndeye Fatou Dia Dabakh qui lui souhaite longue vie beaucoup de bonheur happy to you à Moussa Gaye Ndeye Fatou vous remercie infiniment Euh, joyeux anniversaire à Père Modou Mboup depuis Kaolack photo ngi noonu de la part de Amba caméraman qui lui souhaite joyeux anniversaire et longue vie euh, di am mbégte ak contentement bu mag di nuy tamit suñu soppe boobu di Seydina Omar Bousso euh, Mara Joni Joni borom taw feex yàlla na ko yàlla defal jàmm moom daal ko baax la koo xam ne wax dëgg yàlla yéenam daal ci Kouthia Show daal mooy équipe bi yëpp daal am ndam ci lépp li nga xam ne dañ koy def Seydina Omar Bousso Mara Joni Joni borom tawféex yàlla ko yàlla defal jàmm mu ngi ñuy di leen ñaanal yàlla ko yàlla defal kenn jàmm fu mu munti nekk ci àddina euh, tamit di interpeller monsieur le maire bu Ngor ne vraiment kontaan nañu parce que samedi passé dañu waroon ñëw foofu ci benn programme boo xam ne monsieur le maire daf ko jëndal mareyeurs yi ak mool yi maanaam loo xam ne muul la dañ koy def ci géej mooy tax jën yi ñëw te dañ koo rafetlu moo tax keroog bu ñu waree pour ñu ñëw Euh, Khady Gakou mooy wax ne dañ fa war a dem mais xam naa ne temps bee gàtt ba mu ñu fa dem di wax nag monsieur le maire ah euh, euh, wax dëgg yàlla lébu moom xam naa ne bu mootuwul la diggante jaabante fii ak Brioche Dorée yar a dana tas waaw bu fekkee daal mën na ko utal lu mu gën a gaaw daal benn scooter daal nga xam ne moom dina mën a daw fii daw fii di ñëw loolu daal waaw waaw waaw waaw waaw. waaw ah, parce que parce que léegi bu ma yor drapeau ngor fii ci biir TFM wax dëgg yàlla di artiste boo xam ne daal siggil na ngor fu mu nekk waaye monsieur le maire ñu may ñaan rek nga utal ko scooter bu bees sàq nag ak casque waaw li gën a tuuti waaw scooter tuuti boo boo amee oto baax na yàlla mën na ko bu yéexee rek yàlla dana ko ni dégg nga mu soobee yàlla léegi xamu nuy def est-ce que xam nga ne Adama fay ak Mansour Faye actuellement ñooy actualité bi ci biir réew mi Adama fay ci boppam ay booy nekk Grand Yoff ñoo ne carrément ku munti génn wax ñoom ñu amee am ñoo xam ne dañoo téye seen làmmiñ bu gudd naan Adama Faye warul nekk candidat dafa war a toog xaar président joxoñ am na ay booy yu gën a egg ñooñu ñu génn ne aadama fay mooy doon seen candidat Grand Yoff daal jàpp Grand HLM Grand Yoff ak xaar yàlla actuellement nii coolaa ngi mel ne tulle ak man li waaye nag Adama moom ñëwul ay booyam ñoo ñëw boo yooyu dem dañoo taxaw ànd ak farlu ne ñoom daal li ñu liggéey kenn du ko yàq parce que Adama xaarul ba campagne électorale ñëw muy soog a def ba ñu ma ba mu ko nee ko noppil mu noppi ñu teg Mimi Touré ci la commencé liggéey pour yeneen yi ñëw kon kenn duñu ko yàqal ñu seeti booy jéngu ak booy kara jéngu ñaari jéngu maan jàppale Adama fay Faye mënoon tax a jóg te am nañu ay raison ñu seeti leen booy yi. bon ñu ngi kontaan ah. parce que ay góor yàlla ñoo génn ay jeunes taxaw na carrément ay Adama fay du nekk candidat parce que dafa war a xaar président mais du ñoom ñoo ñuy wax ñoom ki ñuy tànn parce que ñun Adama bi ñuy ànd ak moom ñun ay jeunes lañu bi ñu tegee Adama président ne non Mimi moo fay nekk. dañoo duma te aadama teewul mu continuer di play ak ñun di faj aajo yi ñu koy gis guddeeg bëccëg xoolal émission locale yi passé ba léegi mu nekk ñun découragé wul kon tey bu demee ba samp ndëndam mais kan moo mun a teggi suñu ndënd gi nga xam ne ñun lay tëgal ñun moom lañ bëgg mu tëgal ñu waxal ak gars yi. wax la. waaw ñun ñooy jeunes yi. te président xam na cent de la population ay jeunes nañu. jeunes yi ñoo yëngal le 8 mars Sénégal yëngu. bu ñu bañee nag ku yëngal Grand Yoff ñun jeunes yi lu ñu bëgg nañ ko def. copain waxal yow copain. parce que ñun jeunes Grand Yoff xam nga ñun aadama lañ gëm quoi xam nga ñun ñëw di ñu fekk si babi bi xam nga di ay pile ay petit tamit noonu ñun aadama lañ bëgg et puis xam nga coono sax dafa ay ay football yooyu sax garaaw mais aadama mooy suñu concept ñun ah ñun moom lañuy jël def ko suñu concept mu tegal ñu scénario bu nice ñu war a dund ak moom parce que ay jeunes nañu ah soxlawuñu keneen ku dul aadama non du ay caaxaan parce que population bi la jeunesse est mm-hmm. ci pourcentage bu kawee ci nawetaane aadama moom la gis tabaski moom la gis korité moom la ñuy gis suñu ay mbër buy dem moom moo leen di jàppale moo gaaw ci ordonnance yi ah. mais du affaire morning xam nga léegi prési prési Macky mm-hmm. dañu bëgg nga déglu ñun jeunes parce que am na ku fi gënoon tegal la ay conditions ne la nii demee ak nii lay demee nga na tekk di xaar ah. ñun tamit dañu lay tegal suñu ay conditions ñun koo ñu tegal ku dul aadama bëgguñu moom ci boppam bu la nangulee sax ñun ñoo bañ parce que ñun boobaa dañuy def vote sanction aadama ou rien aadama war a dara parce que ñun moom la ñu gis léegi léegi xeex bi xam nga communication la ñu ngi wax ak ay paa boo xoolee léegi jàkka yi sax ak jumaa yi xale yi ñoo fay nekk ah donc ñun am nañu ay fenn ci côté religion bi ci côté culture ak lépp mais Grand Yoff mooy Sénégal am na Joola am na Saraxule am na Séeréer am na Bambara am na Tukulër am na Njaago am na lépp mais Adama fépp lay dugg su ko neexoon na ki fa toog toog la fa APR mais moom mu ngi toog di doxal et eh, mais yow single bi nga wax da nga koy génne pour gars yi ñu xeex ci gaa yi wax ñoom ne affaire bi du xolal ay xaalis du moo nii affaire bi xolal yëg-yëg la ay ta loo ci wax dama bëgg a rab ko euh, si beneen làkk dama bëgg a rab ko si beneen làkk yow nga tekki ko si olof loolu amul problème ñu jun aci adama la ñu gëcam adama adama la ñu bëgg adama la ñu xam. adama ñu bëgg adama la ñu xam. ñoo ko wax. ñoo wax ba mu neex ñoo ko wax. ñoo ko def ñoo ko def. ko def ba mu neex ñu ñoo ko tànn. ñoo ko wax ñoo ko tànn. ñoo ba mu neex ñu ñoo ko tànn. bëgg. ñoo bëgg ba mu neex ñu ñoo ko bëgg. sunu yàgg nga ma dig dootu fi am gëmbatuma laa ki ma bëgg mooy adama bu dul yoon du yoon bële moom na ñu xam moom na ñu gis ñu bët bu xonke moom na moom ma koy faj du eh. ko wax maa ko wax maa ko wax ba mu leex moom na ñu tànn maa ko def maa ko wax ma cat mu ci acaata ma na jama gëjëm sa cag dëjë bas ki ci muju ma jacaapale jamano jacaapale sëcër yëjëb ma caa ko wacax ma caa ko dëjëf ma caa ko wacax ba tew na jeex ma caa ko wacax ma caa ko wacax ma caa ko wacax adama wacax ba mu sab ma caa ko wacax ma caa ko wacax ma caa ko wacax adama wacax adama wacax ma caa ko wacax Machako wacca Adama boy ba mu sax Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca Machako wacca maga xale maga xale maire yaay booy mag ko wax ñoo neexul adama nañu tànn ma wajax ma wajax ma wajax ma jaako wajax oh, Shop Nord Foire de la part de Pël bu rafet sans oublier Oumar saw Boubou Sow ak Yacine Diop Pël bu rafet moo leen di nuyu mbokk yi ñuy am mbégte ak contentement bu mag di nuyu képp ko xam ne yaa ngi seetaan fii ci émission Kouthia Show ki ñuy seeti mooy cooli bëri na ndax fu mu ne nii Sénégal euh, xool ngeen match Sénégal euh, ak Cap Vert xool match Sénégal ak Zambie stade yi ubbeeku nañu tubaab yaa ngi seetaan nit ñi xam nañu wax dëgg yàlla euh, distanciation yi ñu ngi koy def mais Sénégal retrouvé na waat ci boppam ci li nga xam ne moo ci ay manifestation làmb ji ibbi na sport bi ibbi na ñëpp ngi doxal affaire yaa ngi commencé di demaat ci na mu demee dañuy gërëm ñi nga xam ne nag euh, moom mooy suñu équipe nationale bu baax boobu nga xam ne euh, teral nañu fi dugal fi juróomi bi ci diggante ñaari fan yoo xam ne diggante samedi ak kii démb euh, ci Cap Vert bi ci profité di nuyu Bakary Mané mi nga xam ne nag suñu xarit la nekk ci record di mag ci Sadio Mané yàlla ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit Sadio Mané moom du ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram yàlla gën a neexal tànk yi bi tànk sab suukar bii tànk sa xorom su ko defee muy ñambaan bi ci camp yi yàlla ko yàlla defal jàmm Sadio Mané léegi nag mbokk yi coow li dafa bëri lool nee nañu làmb ji dekki na am na ñoo xam ne nee nañ gason day tëggal état moo tax am ñu ne Gaston soo gisee mu raatale làmb yëpp dafay tëggal état coow li bëri lool lool lool moom nee na dootul waxati te dina wax mu leer war a dootul waxati léegi ñu xool Gaston ndax li ñuy wax am na moo koy waxal boppam ndax xam ngeen ne Gaston fu ko dëgg bàyyi fa la koy fekk. ñu seeti Gaston Mbengue mu leeral Sénégal waaye gindi nañu ci li nga xam ne moo am xel ñaar seen biir bopp ndax day tëggal état war a moom si fond propre am lay tëggal Gaston Mbengue nañu seeti. ñu la ko wax de moom laa mel ñu la ko wax de. leen maa leen di nuyu di leen gërëm di gërëm ñëpp di gërëm waa Ñambur gërëm sama njaboot gërëm sama soxna gërëm samay doom gërëm sama partenaire gërëm ñëpp tool dafa bëri man damay dimbali si sama xaalis laa jël état joxuma dërëm dërëm bu ndaw état joxuma ko mbër yi ku jël micro bi wax ñu ngi gërëm Gaston ñu ngi sant Gaston man déggoo ma benn yoon ma ne maa ngi gërëm état maa ngi sant ki kon ñi nga xam ne ñuy wër di yàq sama der naan Gaston état lay tëggal waaw Macky da ko jox nguur da ko jox dañ ko am ku nekk ci ginnaawam kenn nekku sama ginnaaw ku du yàlla ko liggéey dama ko liggéey sama njaboot maa ko ñax dërëmu kenn kenn kenn dugg ci yaa may dégg ñii nag nga xam ne dañuy ruural ci suuf naan Gaston Macky da koo jox war a Gaston ministre bu nekk ci ginnaawam war a dafa ñoo xam ne dama ne ñu ngi tooñ ñu ngi may tooñ ñu may tooñ de man lépp loo xam ne dugal naa ko ci lamb dama ko ñàq bàyyi na woon bàyyi naa woon lamb yi nag ndax yu wax yu mel nii waaye xam naa ñiy wax loolu dañ bëgg ma retiré wu jot na nag président Macky Sall na génn leeral ne moom nekkul sama ginnaaw état joxuma dërëm te nag léegi man a may laaj sax léegi ndax quatre cent cinquante milliards yi nga xam ne moom la état génn jox ko xale yi ñan ñooy bëri ay paa ñooy bëri war ay xale ñan ñooy bëre xale yoo xam ne fukki at juróom benn ñaar fukki at juróom ma téye leen di génne samay million di leen jox ñu ne corona am na distanciation moo war a am mu ne stade bi bu feesee ba fees li mu waroon fees feesu ko yow dangay dimbali nit ñi nit ñi di yàq. yow moom naa la utal contrat ci lamb ji waaw dinaa la utal contrat ci lamb ji ngeen di way ndax man damay dimbali ni rek te yàlla tax naa leen dimbali léegi ñaar quatre cent cinquante milliards yooyu waa état ñu mu ko jox xale yi waa ñii bëre ay maam ay maam la ñu war ay gune ay gune yu buddeeku seen nen rek soog a juddu ñooy bëree lu mu gàtt gàtt état waroon na ma jox xaalis bu bëri ndax damay organiser su ma perte maa xam su ma gañe maa xam xaalis bi ku mu dellu yi dëkk bi léegi noonu dëkk. yàqkat yi. xam nga yéen xam ngeen ko mais yàqkat yi nga xam ne dañu war di yàq di ma jéem a yàq mënuñu maa yàq mënuñu maa yàq. yi sax ak ma ne ma ne jaaykatu ndox yi jaaykatu socc yi war a génn nag wax ci télé bi ñëpp dégg ko léegi li ma bëgg ngeen xam mooy ñi nga xam ne dañuy porter ay projet naan dañuy dimbali xale yi seen kër nañuy toog yor seen téléphone di noos xaalis bu mu jeex état u leen topp ci dara man nag damay dimbali xale yi gisal seen bopp damay dimbali xale yi di gisal seen bopp ñaata combat yoo am réew maa ngi nii nooy ana li fi amoon coow li amoon mois de mars da ngay ko déggati dama commencé tëgg combat yi lépp na teg kon képp kuy promoteur jël sa xaalis du man rek man ak ñeneen ak ñeneen état da war a taxaw ñee di waa TFM te tëgg ay làmb même bu dee wujjeeg man sax état da war a jàppale ak xale yi promoteurs yi nga xam ne dañuy jog ci xale yi dañ leen war a jàppale yàq ko suñ der yàq sama der naan état moom ma jox joxuñu ma dërëm lu ma mu ngi nii liggéey ba ñàkk wax ba ñàkk ñàkk takku der yi ma ne ma ne ma ne ma ne xale yi dee nañ ma ne ma Gaston bés boo bàyyi làmb dañu génn marche te xale yi génnoon dañ doon yàq mais ñi bu ñu génnee duñu yàq embouteillage la yi indi ci réew mi ndax mbëri bu ñu bàyyeekoo Kër Masaar ñuy Géejawaay ñuy Saalum ñuy Wàq Nguuna ñuy Ñàmbur waaye dama ne réew mi yëpp toj man ngeen bëgg yàq kenn mënu maa yàq sama dërëm dërëm naa ci dugal waaye dërëm état dugg ci loo waxoon léegi yow. njaabur njaabur bu mag bi. loo doon way léegi. ma ne la yaa ko def. njaabur njaabur ku ko ci amul na nga war ci liggéey. njaabur njaabur njaabur njaabur ku ko ci amul na nga war ci liggéey. dama cee yàgg dama cee yàgg man dama cee yàgg dama cee yàgg. de Mati Samb ki nga xam ne mooy maam nekk ci Liberté 6 ñu koy souhaité happy birthday maam maam la tudd maam waaw maam euh, ñu koy souhaité happy birthday to euh, de la part de Mati Samb foofu ci Liberté 6 di ñaanal tamit yaa nogoy depuis yëmbal yaayu Cheikh yi Adama Ngom ak euh, Awa Ngom ca Malika waa Kolda tonton Alpha Boiro maire ramatu Laye Boiro de la part de Mariama Diaw moom moo leen di ñaana kenn du jàmm mbokk yi dañuy seeti président Macky Sall parce que tamit moom ku génn wax tamit yaa wax sa wax moom boo waree wax rek day wax moom tamit dina leeral tuuti diggante moom ak euh, mouvement ñun nañ dàq lan lañ jot a wax tënk ko ñu seeti mag Sall kon ni ma ko defee saa yu ma li nga xam ne mooy conseil des ministres damay def conseil de la jeunesse maanaam xale yi semaine bi yëpp lan la ñu réclamé ñu wax ma ko ma faj ko moo taxit may bàyyi ki nga xam ne mooy la mooy président des jeunes de APR yi nga xam ne dañoo am taxawaay bu rafet pour défendre le président Macky Sall tamit gunge ko ci point stratégie yi nga xam ne danger la ñu jéem a tekki danger puus ma daal di jàll xuus ma jàll daal di xuus si ñaay bi ànd ak yéen ndax xale yi ñoo xew ci jamono. macha allah monsieur le président instant bi moom wax dëgg yàlla amul jeune buy taxaw te kontaanul si yow. dëgg la ah bon biñ commencé ànd yow ba léegi. Hmm. gis nañ si avancement. gis nañ si yokkute macha allah wax dëgg yàlla waaw parce que ay jamono nag comme li ma la ko wax ni ma la ko doon waxee suñuy yaay dañu daan tiit waaw jekki saa yi buñ taalee fële pëna xam nga ñu jekki saa yi tiit xam mais wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi ànd ak yow silvise macha mm-hmm. allah waaw ñu laa ko bëggee sa kaw sa kanam rek ñu laa ko bëggee mais t-shirt bi gars yi ñu ngi koy sol chemise yi il paraît que moo xew waaw waaw gars ñu ngi koy sol ah. waaw da ci créé courte tàngaay baa ngi ñëw ay débardeur na ay léegi da def soow fii mm-hmm. mburu mu nekk nii ngeen def édifice parce que damay bëgg moom tamit ñu xam ne ba léegi mburu ak saw bi daal. ah ok. mooy mburu. mburu léegi xale yi li ñu bëgg a xam mooy li ma waxtaan ak ture Touré. Mm-hmm. Mimi Touré woo naa ko pour ñu waxtaan. Mm-hmm. parce que kuy dem ba xamatoo foo jëm da ngay delloo fi nga jóge woon. Mm-hmm. bon waxtaan nañu. waxtaan bi premier épisode la dañ ko dagg. après bu ñu defee deuxième épisode dinaa leen expliquer fu ñu toll. waxtaan nañu. saafonte nañu déggante nañu gindeeku nañu léegi nag li des mooy mu dem xalaat man ma xalaat ñu daje bu àndee ñu ànd bu àndu ma xam ne loolu yàlla dogal mais damay del soit li nga xam ne moom laa waxoon képp koo xam ne da nga génn sa bopp di présenté wu pour sa candidature te APR jox la ci ndigal jàppal na yaa génn sa bopp ci parti bi parce que tamit dama topp nit ki ba mu sës amul goro amul càmmin amul keneen li ma bëgg mooy la jeune yi nga xam ne ñoo choisir ñu set ki nga xam ne moom la président bëgg mu doxal parce que man tamit maa ngi yor samay bët nelaw ma tournée bi may def nii maa ngi xool xam naa ñu liggéey ak ñu liggéeyul xam naa ñu liggéey ak ñu liggéeyul mais ci réew mu am njiit mm. njiitu parti bi man la mm. su ma ne kii laa na ñëpp dem topp ci ginnaaw kooku mais boo ci àndul nag bu la neexee nga dem mais boobaa dootoo demal ci turu parti bi ah bakken laal la ñu digaale kax moom bakken ngeen may ma tuuti ma gaar wale ngeen may ma tuuti ma gaar wale huit heures temps yi dama gisatul dara loo def xam nga na yow am na nu mu demee woon loolu demetul noonu xale yi ñoo bëggoon ma ñëw Ziguinchor après Fouta dama na Fouta su ma fa defee deux jours Ziguinchor dinaa fa def une semaine ndax booy ñoo ma doolal booy ñoo ma dooleel te nag bu ma demee Ziguinchor di nga xam ne lépp dëgg la parce que yow da ngay wax ne titre foncier bi yaa ko yor mhm. man maa yor titre foncier bi nga xam ne mooy Fouta ak Bignona dinaa la woon les preuves palpables dama ne daa jël beneen paquet li nga daa jëwoon dafa jeex daa jël beneen paquet li nga daa jëwoon dafa jeex daa jël beneen paquet li nga daa jëwoon dafa jeex daa jël beneen paquet li nga daa jëwoon dafa jeex diwtiir diwtiir diwtiir naa la xamal ñaari mbir nga xam ko léegi ci tel ak lu munti xew ak lu munti demee danaa wax ne actuellement ni maa ngi ci jàngum joolaa ak jàngum soose bu metti léegi léegi léegi yow diwtiir da ma doon jéem a xoqatal mm-hmm. waaye xale yi nee nañ ma léegi yow yaa mm, moo tax mën a kasumay kasumay képp mm-hmm. koto boolo mm-hmm. ala mën a tiyaara kayra la maa fi nekk diwtiir diwtiir xam naa la ma ñor yaa ngi xala yaa ngi nii door dem Fouta le 15 bii waa mouvement Fouta Tampi nag seen dernier point de presse jàkkaarloo pour wax ci wax ji benn yoon dootuñ ci wax di bala 15 tey la Fama mii moo ànd ak góor yi xam ne ñoo taxaw dëgëral ne Fouta Tampi waaye jàmbaaru Macky Sall yaay faalu Macky Sall yaay faalu Marème Faye Sall yaay faalu APR nee na ñoom Fuuta dañuy fanaani ñoom xaaruñu la 15 ñoom le 13 samedi dimanche le euh, dimanche 13 ñu fanaani te nee nañu képp ku fa wax Fuuta tampi dootoo ko dalati ah loolu nag guerre de communication la Ndeye Fatou mën a di ñu dem seeti débat boobu tey nan lay mujjee ak Fama Ndiaye bu mouvement tampi ak Yaay Fall mu euh, bi nga xam ne mooy Yaay Fallu Macky ma Marème fay Sall ak APR ñu xooli ko. waaw yaay Fall sama doom Ndeye Koly ñàpp yegg si. waaye Fama ar ar joodo eh, jàmm ok. <laughs> noo ngi si jàmm. baa sonnoo ci yoon bi. ah. yaay Fall ba dal nga ak jàmm. alhamdulilah. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk téléspectateur yi ñu ngi leen di nuyu. doo ma jox seen wàccuwaay bu baax a baax. Samba si def defal naa nga ah. rek. waaw ah, bu ma yàlla waaw dama bëgg rek nga teel ma woo daal ndax duma garde corps. loo doon fi toll nii. Eh, garde euh, mouvement la. garde mouvement. Eh. yaay Samb si. Samb si bi nga. ñëw naa fi débat ah, kii la ànd. waaw tey nag yéen a ànd. ok maa ngi jàmm la. waaw mm. mbokk téléspectateurs yi leen di nuyu di nuyu mbokk internet yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre si suñu plateforme digitale yi Facebook beeg YouTube yooyu noonu kon nag tey dañuy ñëwaat ci débat bi nga xam ne mooy last bi mu ñëw ci li nga xam ne président Macky Sall daa nar a dem fii si Fouta Fatou Ndiaye mi ñu xam nga nga xam ne semaine beeg yow yëpp dafa commencé di ci télé yooyu noonu mu ñëwaat parce que defoon nañ débat mais débat bi daal leeru woon bu baax ñu daal di koy indiwaat pour mu gën a leer parce que ñu dañuy bëgg rek lépp di leer waaw Fatou Ndiaye mouvement mhm. bu baax a baax a baax ak sa coordonnateur bi nga àndal muy Samba si asalaamaaleykum tàllal ko micro bi asalaamaaleykum waa aduna bi asalaamaaleykum waa diaspora bi mhm. mi salmini moon mi juuri moon onon yibɓe fouta onon misal mi salmini moon wallahi wallahi waaw ndax euh, Ndeye Fatou Ndiaye damay sant yàlla rek julli ci sangu-sang yi mhm. bëgg rek ñu commencé waxtaan bi ci bisimilaay rek eggale ak alhamdulilah rabbil alamin di nuyu sama naataangoo bi nga xam ne tubaar fakàlla macha allah moom daa takk ba mel ni sayu mat laa Macky Sall fu mu jëm rek daa di ko yóbbu xam bu benn moom laa bëgg a jàkkaar Samba noo def waaw man daal tey. kii dama ko indi. ndax xam naa ne jigéen ak jigéen ñoo mën a waxtaan. waaye kii maa indi <laughs> man maay président. Euh, euh, Fouta Tampi moom muy présidente. <laughs> yaay faalu son excellence yaay faalu première dame yaay faalu APR ñu ngi leen di dalal comme d'habitude si suñu plateau bi nga xam ne waa àdduna ñëpp lay wër. waaw salaamaaleykum àdduna wër nga këpp. Mhm. Ndeye Fatou maa ngi lay fay bu baax a baax a baax maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora Touba di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee Yaay Fall di nuyu son excellence monsieur le président Macky Sall. Mhm. di nuyu madame Marème Faye. Mhm. waaw ndax dernier chaque grande homme yaay une grande dame. la maa ngi koy nuyu di ko màggal di ko tatagal. Mhm. di ko di ko di ko gën a sama mbëggeel ci moom. su ma fa jógee damay xuus ba Mermoz. daal di nuyu sama femme d'affaires bu ñaawul boobu nga xamante ne mooy Sophie si di madame Sall Korma Dieng. ki nga xamante mooy jigéen ju góor. kooku kooku daal maa ngi koy nuyu muy Sophie si femme d'affaires bu mag la waaw ñu koy sargal su ma fa jógee nag maa ngi nuyu sama sama mbokku Diourbel eh, maa ngi nuyu sama mbokku Bawol Bawol nuyu ñëpp di nuyu borom kër gi Ndeye Fatou di la nuyu di nuyu sama naataango bi nga xamante ne nee tey dañoo nee na man damaa takk ba mel ni sayu mat waaye moom dafa fiwju ba mel ni ku boppam di métti uh-huh. maa ngi koy nuyu <laughs> ay débat bi daa nar a neex daa nar a ala doome bi daa nar wàcc ba zéro waaw Fatou Ndiaye uh-huh. Fatou Ndiaye ci li ñuy wax rek moo gaaw euh, président Macky Sall day ñëw Fouta le 15 daal di fay ñetti fan maa bëgg a xam rek nan ngeen koy waajalee. ñun soxlawuñu président Macky Sall. ñetti fan foofu déet parce que Fouta tampi Fouta dee ko jox mu micro Fouta ci boppam moo sonn soxlawuñu Macky Sall mu ñëw fa. Oh. soxlawuñu kuy nural Macky Sall mu ñëw fa. Macky Sall bu ñëwee moom lu mu fay def. président bu mu ñëwee lu mu fay def laa la ak lan la fay wut. Mm-hmm. soxlawuñ ko na toog moom ci rukkam soxlawuñ ko ñun. ah déedéet du noonu tamit gan ngeen am président mooy ñëw de gan. ma ne la du gis sax soow bay am cere càkk min jiiɗa mbi yo yiide makki sall fouta mimi yo fot séné yo fot dakar par ce que coronavirus ne ari sénégal ne ari dakaar a arata fouta yoni min jondi ni yow da gis ni président Macky Sall buy ñëw indiwu fa lenn du corona dong la leen dong la ñuy andil ah, ndax lim ñu teg mooy moo ëpp corona suñu doom yi jànguñu jigéen ñi bu ñuy ami doom dañuy sonn ndox mi doyul dara doyul dañoo sonn waaw yee yee Samba. Samba rek la bàjjël suñu émission bu ko yàq. ba tey ku ñu xoj. Yaay Fall Yaay Fall moom nee na soxlu président dañoo président amul leen benn njëriñ lu dul coronavirus la fa dara indi yokk fa mbas fa daal loolu lan nga ci gis nii. gis président. Mm-hmm. mooy li ma la waxoon rek lamtoor Bourguédé kookoy lam Ngaar lamtoor Bourguédé bàyyi Amadou bàyyi Ibrahima gis nga kooku bàyyi kartum góoru ma leen fay mooy xuus dugg ñaa jàll te ñoo koy gunge waaw waaw dafay dugg am fa ñetti guddi kenn du ko a ñaar dërëm gis nga yéen ñooñu noonu seen soi-disant mouvement boobu noonu ngeen teg nga xamante ne ay deux personnes ngeen xaw ma ay trois personnes man moo boobu sax bëggatuma ko prononcer sama game parce que existé wul existé wul di hmm. ndax Fouta mu ñoom ñooñu di ko wax ñoom ñii di wax naan Fouta Tampi sax gëmuñu ko. Mhm. ndax ñoom nañ mhm. waxal yàlla. Mhm. def président bi mu fi toogee ba léegi. lan la la def na fi loo xamante ne ñi fi jaar defuñu ko fi. ñi fi jaar lan la def lu fi président deful. nañ waxante dëgg maa wax ngeen da takk takku noonu ànd ak seen coalition xeex président waaye di ngeen xamante ne ñun ñoo xeexal moom xeex ñoo koy xeexal nga président ñun ñoo ko daan taxaweel ne ñun ñoo koy xeexal ba mu ko yéen ba mu saf te yéen du ngeen yëngal dara. yéen ñi bu ngeen yëngal tojoo leen fenn. jox ko mu wax yow. kii xaw ma jox ko mu wax xaw ma buñ ko fu ngeen toj. yow ma nga may xool sa bët yi. <laughs> Fatou Ndiaye. Fatou Fatou Ndiaye gisoo ne coow léegi la fi ñu toll nii Sénégal soxlawul loolu noonu est-ce que doo leen jéem a président Macky Sall bu ñëwee ngeen toog ngeen waxtaan ak moom bu ko defee fuuta tamp bi jeex fuuta daal di fuuta daal di tampaani. nga ne lan yow dégguma la parce que yow mii sax yow yow nday Fatou yow dangaa far ba gis nga journaliste du defee ni ngay defee déglu ma ah. booy poser question da ngay réglé waaye nekk fii nekk fii nga mel ni laa la ku ñu duggal ko tuwi fi te mu bañ bugguma loolu yaa ngi dégg moom nee na ñëw Fatou Ndiaye may ma déedéet déedéet doo ko jaxasee ma rek yaa may a dama laa indi ah, may ma ma continuer ah maa la de kenn déggu la de eh, kenn déggu la jooju nag sàmm da eh, ko war eh, eh, a ko wax papa ko ma ko mu ma ne. waaw da ngaa war a wax. waaw dama ne dama ne li nga wax. mi ne min soxlaa ni Macky Fuuta. min soxlaa ni Macky Sall Fuuta Sénégal sax soxlaa ni Macky Sall. day ah eh kay. mi ne fa wona miɗon tampi pour kala kadi janggani l' école ɓe ñamani ɓe jarani joni ko macky sall waɗata fouta haydara waɗani fouta yo jooɗo dakaru mum koyo pale mum koyo hedde marem fay sall woɗo tan emane lima wax tonto goma ci dama ne coow li ni est ce que leen waxtaan ngeen nekk benn ma loolu laa la laaj nga ne damay jaxas sax waxtaanal xanaa kuy dégg ah. moom dégg su dégg ñëw moom mii nii di wax moom est ce que fouta la dëkk moom man vérifié xoolal samay os dëkkoo Fuuta de. xoolal samay os dama ne la dëkkoo Fuuta de lii de ay os fabrication la yow yow xam nga laa bëggee wax sa gémmiñ. Fuuta la la Fuuta la la Fuuta la la